naka laa ko acquérir nouvelle Bobu. naqarlu ko en tant que responsable euh, de ce parc forestier zoologique mais également en tant que humain parce que ku seetaan image yi xamne ne euh, bi euh, bien que nak il y a plus de plus de peur que de mal parce que niñu ñu fooge woon ne le la gaañoo xëy na def na ci sutura ba amul fracture amul amputation blessure la bu bu nek ci loxo bi donc euh, loolu daal laa ci mën wax mettit lu ko ko également bon li ma ci mën a wax mooy bi ma ko gis naa gis naa effectivement vidéo bi mais dama li ma ci jàngat mooy euh, dafa nekk sous le choc xam nga c'est une situation très difficile gaañu na coow li bëri na xam na ne aussi def na faute euh, tout ça réuni pour moom dafay nekk sous le choc donc moo waral euh, xëy na muy chercher des ay excuses euh, maintenant est-ce que loolu am na ou pas moi je suis là depuis le mois de septembre passé donc je suis dans mon cinquième mois à la tête donc de la direction du parc forestier zoologique mais j'avoue que musuñu ma eggee wax ju demee noonu que ne dañuy jël ay poil di ko jaay loolu musu la egsi sama bureau te ki nga xam responsable zoo bi lu ba éggé mako fi sama bureau maintenant comme wax na ko euh, suñu gar ñun en tant que responsable responsable de boté en touche de dégager en touche y vérifier information bi su fekkee né lu wër la lu am la mesure yi ñu jël ñu jël ko ba lépp lu nga ce en tout cas ak lu yoon nangu ñu fexé ba du am ci biir euh, il am de façon générale. loolu aussi on a des éléments pour yu firndelne, a firndeel ne euh, loolu mu wax euh, euh, pour la bonne et simple raison que tey pas plus tard que tey ci suba rek le dem Pasteur responsable zoo le sergent Bindel Ndiaye est le directeur des eaux et forêts sama oto laa leen jox pour ñu dem bien que dama waroon a dem euh, ci benn euh, fu ñu ma woowoon fu nga xam ne mënu ma fa ñàkk dem donc mu jël lijjanti man du ma yóbbu parce que ñun suñu priorité fi mu nekk mooy ñu fexe moom ba mu jotaat wér gu yaram donc loolu muy wax na mooy faj boppam méngoowul ak li am euh, bi ci topp mooy prise en charge fii ñu fi nekk di liggéey ci parc forestier et zoologique de Hann ñaari façon prise en charge lañu yore du benn rek dafa am euh, lu ñuy tuddee mutuel des eaux et forêts soo xoolee tableau ba la ci sa ginnaaw tableau boobu tableau mutuel eaux et forêts la képp ku nga xam ne yaa ngi bokk ci direction des eaux et forêts à l'échelle nationale am na mutuelle bu nga xamante ni soo amee yenn jafe-jafe mutuel boobu moo lay jël en charge donc loolu mooy li nga xam ne moom la eaux et forêts ba mu daj ci Sénégal euh, outil bi muy am pour mën di jël en charge ni liggéey ci service deuxième prise en charge bi mooy eh, prise en charge bi nga pour direction parc forestier zoologique de kooku état également dafa mettre à la disposition de la direction du parc forestier et zoologique de euh, enveloppe buy permettre ñu jël eh, leen en charge en cas eh, d'accident de travail en cas de maladie ñoom ak seen famille et que loolu également on a les éléments pour vérifier quoi par contre euh, moom ci boppam euh, xëy na situation bi dépassé na ko bi amé amee gis nañ ci vidéo yi ni mu génne daal di dem euh, boobu mu demee def na vingt heures plus ñu koy wër ñun ci dëkk bi il a fallu que ñuy def ay recherche ba ñu signaler ñu ko ñu xam fa mu nekk responsable zoo bi ma yebal ko mu ànd ak kenn ci mag ñi nga xam ne ñooy liggéey ci zoo bi ñoo dem waxtaan ak moom mu dellu si ñu commencé ko jël en charge correctement donc 24 heures yi mu toog gisuñu ko xëy na ci la def intervention boobu ci média yi mais wër nañu ko ba gis ko indi ko jël ko en charge comme ni ñu jëlee en charge n'importe quel travailleur fii dans le dans le non loolu aussi méngoowul ak li am moo tax euh, intervention ci média yi dama ko euh, dugal rek euh, ci compte situation stress bi mu nekk ak coow lu bëri li mu mu xaw a jaaxle su ko pen su su fekkee ne loolu am na am na bulletin de salaire na ko génne nit ñi dinañu xam du muy fayeku lan la mais fi mu mën a yem pour bañ a dugg ci montant moom bi muy fayeku li ma ci mën yem mooy li muy fayeku dëgg-dëgg wuute na trop trop ak li nga xam ne moom la moom la déclaré donc foofu aussi j'avoue que li mu wax méngoowul ak li am ba léegi aussi vérifier guma ah, amaguma preuve que ne dafa màndi woon parce que image yi laa gis c'était un dimanche après-midi nekkuma woon ci biir parc bi euh, par contre euh, responsable zoo bi pratiquement il est dans le parc en permanence sauf su fekkente ni dafa am permission pour guen mom également ba légui amagul ben preuve bu wane ne dafa màndi won par contre limu meuna xam muy élément yu wër dégg naa ci vidéo bi so baye xel amna vidéo yu circulé bu mu ci wax ben visiteur diko euh, ñaan pour mu may ko mu ñëw fekk ci ko fofu So dégloo bu baax mu wax kooku naan ko bul parce que dañ koy tere soo bàyyee xel am vidéo yi circulé am ci bu nga xam visiteur kenn ci visiteurs yi buggoon na fekk si ne dañ koy tere taxawal foofu donc ci barrière de sécurité yi la donc il kon xam parfaitement barrière de sécurité nga la grille kenn waru du liggéeykat foofu du visiteur sauf ñi nga xam ne ñoo yore entretien animaux yi te bala ñuy koy jéggi am nañu système bu ñuy dugalee gaynde yi wala yeneen xeetu rab yi fi nekk ci ay li ñuy wax ay cage de sécurité tëj leen ñu nekk ci biir ñu soog a mën a dugg nag ci cage yi pour def entretien bi ñu war a def donc moom xam na ni mu ni lu ñuy tere ak lu ñu terewul donc effectivement c'est une faute maintenant qui sera, dont la suite sera laissée à l'appréciation de l'autorité. xeyna dugg ci parc forestier bi d'autant plus que li nga xam ne mooy sujet bi mooy zoo bi mais déjà parc bi boo defee enquête bu ndaw diggante mois de septembre ak léegi li ñu fi def ci réalisation euh, c'est très euh, gratifiant en tout cas doon na lu nga xamante ni mën nañ ko ndamoo euh, ci accompagnement wu directeur des eaux et forêts ak ministre de l'environnement yàggul dara daa ñaari semaine bu ñett ci benn euh, cleaning day bi ministre bi doon def ñëw na constater boppam li nga xamante ni ñu ngi koy liggéey fii ci biir parc bi rafetlu ko kon fekke woon nga ko yow donc dégg nga li mu wax félicitation yi mu félicité le directeur des eaux et forêts ci ni ñu toppatoo parc bi niñ ko entretenir ni ñu toppatoo également animaux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir maintenant pour réalisation ci biir soo li ñu njëkk a def wax mooy euh, liggéey bi dañ koy teg ci ñetti aspect bi ci jiitu mooy animaux yi nekk ci biir parc bi du ñoom ñoo demandé pour nekk foofu ñun ñoo leen fa teg pour des raisons évidentes donc li ñu warloo li ñu war mooy ñu assurer leen lekk bu doy nekk lekk qualité assurer seen suivi sanitaire lépp luy seen wér-gu-yaram assurer propreté lieux yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mais également assurer ñoom seen sécurité en tant animaux donc beneen volet bi mooy concerner eh, ñi nga xamante ni fay sécurité mais également ñu nekk ci condition de travail qui nga xamante ni dina garantir santé parce que ñu ngi en contact avec les animaux euh, garantir également seen bien-être troisième volet bi mooy visiteurs parce que visiteurs yi bu ñu fi ñëwee également dugg ci biir zoo bi ba keroog ñuy sécurité ñun ñoo ko garantir exemple bi may jël mooy li nga xam ne dal suñu bu doon visiteur la dal doon na gën a doon na gën bari domaine la bu nga aussi ñoo ngi ciy ci nga ni ñoom fi teg exemple yi ma ci mën joxe mooy gaynde yi ñu nekk suñu visiter ko di nga gis ne côté cage de sécurité eh, ñaari weer ci ginnaaw directeur des eaux et forêts dañu fa ànd ñu koy won li nga xam ne moom ñuy liggéey mu jox ñu ndigal nañ

donc faire en sorte que les visiteurs et les travailleurs soient dans l'impossibilité de franchir cette barrière de sécurité donc à partir de lundi déjà vous verrez parce que euh, lu war de faire une ñëw mais entrepreneur bi nga xamante ni moom moo waxtaan nañu ak moom bu jubóobu moom ba mu def devis bi ba programmer pour lundi prochain enclos bi nga xam ne fii la bukki ces besoins de sécurité là également moo taxoon ñu waxtaan ak partenaire comme moyen état également pour besoin et ci côté bobu partenaire jàppale nañu bo actuellement enclos avec toutes les normes de sécurité yi nga actuellement n'importe quel zoo bo dem ci zoo yi moderne normes de sécurité pour ce qui concerne les donc ci yoon boobu lañu ñu nekk te bu ñu paree ci yooyu dañuy ci ci bukki ak gaynde yi ñu ngi jëm ci yeneen xeetu animaux yi nga xamante ni ñoo nekk ci zoo bi lépp nak xëy na mënuñu koo defandoo ci eh, diir bu gàtt boobu parce que comme ñu ma ko expliqué juróomi weer laa fi defagul mais ci juróomi weer yi vraiment euh, am na jéego yu bëri yu nga xamante ni def nañ ko avec l'appui et l'accompagnement de la direction des eaux et forêts sous effectivement le, la supervision du ministère de l'environnement et du développement durable parce que bi ma fi ñëwee li ma njëkk a noté mooy ne le ministre de l' environnement et du développement durable parc forestier zoologique de Hann dafa nekk ci ay préoccupations majeures parce que gis naa ne daf koy bàyyi xel daf koy seetlu dañu ci jox ay ndigal di ñu ci conseiller également te ci tànk également lañ nekk.